alors maintenant lu ñu constaté ñun ñëpp mooy euh, bateau. Mhm. ak yéen. Mhm. jàmba. dawatul dañ kaa suspendre bateau jàmboom dawatul dañ kaa suspendre. Mhm. bateau Aline Sitoé dawatul dañ ka suspendre. mais les bus aussi les bus. Sénégal Dem Dikk de la société Dakar Dem Dikk mhm. yooyu tamit dañ kaa suspendre mhm. euh, yemu ci nag ñu dem dugg ci coono boo xam ne kenn xamul fu mu toll maanaam chauffeur si nga xam ne dañuy jóge fii Dakar particulièrement Dakar pour dem Casamance dañooy yokk seen paas ba jiggi dayo mooy lu ñu boo xam ne quatre mille francs mm-hmm. ah, bu amee quatre mille francs laa la wax mm-hmm. ñu yóbbu la Casamance ci yeneen arrêt bu fa taxawee mm-hmm. boobu moo dem tey ba quinze mille francs ñetti junni quinze mille francs bu dee un responsable de famille kilifa bu am soxna ça fait mhm. mhm. am ay doom je exemple juróomi doom cinq mhm. kenn ku nekk quinze mille francs ak xaram bu ñu la may paas xar mi huit mille francs lay doon mooy dañ laa kaa saraxi huit mille francs pour xar mi dem tabaski toog Dakar tabaski moo gën donc loolu mu dikkee la ci li ma foog à un montant de cent treize mille francs génne koo Dakar de yaa ngi ci biir Dakar ba tey ak les aléas mhm. la li nga war a lekk si yoon mhm. leneen loo xam ne xëy na di nga ko jënd sax ci yoon bi. pour xale yi. yére yi ñëw sañ-sañ ak pour famille bi pour dëkk ba. loolu mooy paas. ravitaillement ñëwagul parce que doo dem nii ci loxo neen ravitaillement pour tabas yeneen matériel ñëwagul tamit yu ñu jënd pour tabaski ay yére xale yi ak leneen ak leneen lu bari ñëw mm-hmm. bu ma jëlee par exemple euh, saaku pomme de terre fii Dakar am na fa mu jar douze mille francs boo jëlee oignon saaku euh, soble am na fa mu jaar quinze mille francs saaku lait en poudre meew sunguf meew soixante dix mille francs nga jël euh, buteelu diwlin bu cinq litres bu gën a yomb six mille cinq cent francs Eh, eh, eh, gàmm ngeen koy jëndee nag ñun xam nañ déedéet déedéet <laughs> on est des patriotes quand même. non gàmm yéen di jënd on est des patriotes. moi je suis du sud ah. maa ngi ñëw maa ngi ñëw ñu ko jëndee gàmm bi tamit. bu dee loolu am na. fa lay jëndee. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. dañuy tukki Adama Fall Adama Fall <laughs> loolu bu dee am na. Hmm. man gis naa ko tamit je ne peux pas am na ñoo xam ne ñenn ci Sénégal yoo xam ne dañ koy jënd ci Gambie comme ici au nord du pays am na ñoo xam ne ñu dem. ak au centre du pays. waaw mais loolu su booba da nga koy laaj état bi lan moo ko waral nag te loolu neef yi ba tey. Mhm. voilà donc euh, nga dem tamit euh, mooy saaku euh, suukar. 31 mhm. 500 francs. ñaata kilo 50 kilos. 50 kilos 31 500 francs. Mhm. léegi boo jëlee paas bi. nga boole ko ak lii yëpp li ma lim xam nga fu nekk damaa dama damaa laal rek benn benn saaku par saaku wax ma la deux saaku trois sacs cinq benn benn rek mu dikkee la ci deux cent soixante quinze mille cinq cent francs ñeenti fukki fukk juróom ak téeméer su ma juum deux cent soixante quinze mille cinq cent francs ñun joolaay ñu ne ko Suwili bu Kanku Gaba di bu Tënkeen di Keme ay séeréer a fi da ngay làkk sa joolaayu di waaw gis nga ça dama bëgg ñëpp comprendre lan laa bëgg wax surtout ñi nga xam ne euh, ñi nekk à la partie sud du pays ci bët Saalum réew mi nag waa Casamance deux cent soixante-quinze mille cinq cent francs Suwili bu Kanku Gaba di bu Tënkeen di Keme fu ko fata ana okono benn nit loolu dafa métti trop. mais démb rek da fekk ñu koy kaas fii di wax fii démb. ci teel yi dafa yàgg ci transport bi. dafa yàgg mais mi ngi gën di jéggi day sénégalais la mu am ci fête gën a rëy yu gën a mag koy màggal nag tabaski bokk na ci. Mhm. am ñi nga xam ne balaa ñi dem dëkk ba foofu tabaski jot. waaw ah, ñu dem tabaski ba seen voyage day annuel. Mhm. parce que fête bi nag c'est une fête qui se fait en famille mm-hmm. ku mënul dem nag dañ ko war a yërëm nag mm-hmm. am na yeneen paramètres yoo xam ne tamit chauffeurs si duñ ko xalaat mooy ñu bëri ñi dem di julli dëkk ba parce que foofu lañ soxee ko ñëw fii mm-hmm. ñu ci gën a bëri c'est des ouvriers c'est la seen doole matewu ko noonu ñu ci gën a bari nag lu ñuy fayee ko weesul cinquante mille francs am na ñi nga xam ne seen salaire trente mille francs la man mii gis naa ko trente mille francs dëgg la kooku nu muy def nag tere ko dem julli ndax paas kon appel bi may lancé ce fois-ci dans un premier temps nañu dellu si seen xel boo waxee fet xam nga tabaski fête la waru si ànd benn coono. quand on parle de fête. Mm-hmm. warul am douleur. xel bu dal de mooy fête. fet bu ànd ak coono ak métit ak tiit nekkatul fête. parce que la fête c'est la joie. mbégte dama wax léegi ci rek